Big Mama ak Grand Théâtre ban afinité la am ak Ngaaka Blindé ak série ak euh, show bi ban affinité la am. ah Ngaaka sama xarit la dafa maa invité ne ma ma ñëw moo tax ma ñëw tey ci show bi parce que am na ay xaritam yoo xamante ne tamit damay ànd ak ñoom ku si mel ne Marina moom moo ma ne boo ñëwul naa la mere te Ngaaka tamit dafa sori ci man moo tax ma ne xaaral ma ñëw. ma ànd ak sama ay xarit ñu ànd ñëw. léegi Ngaaka ak affinité bi ban affinité la am vu que Big Maman ñi ngi koy gis ci série yi comme par exemple Mœurs mu instant yi mu loo xam ne mi ngi koy cartonné à 100 pour ban affinité la am réellement ci boosu Ngaaka yaatu na yaatu na parce que mënu wax lépp sax bëri na yaatu na en tout cas li ma ci mën a wax mooy lu ndaw la may que ne ay xarit lañ sama gaañ la xam nga ne bu xewlee moo tax may ñëw heure bi fii. xam nga ku yàq say nelaw tax ñëw ak sonn ak tournage yu métti war ngaa xam ne sa gaañ la sama xarit la Ngaaka